di sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu initiative bi comme ñu ko waxee chaque fois dama koy dama koy wax c'est une parce que ay xale moom boo leen di dajale euh, di leen tàggat je pense que yow loolu référence la euh, dañ koy gën a aussi mu gën a am motivation bi gën a ànd xale yi surtout aussi population bi xam ne que kii lu muy def lu jar taxaw la. ñom ñu ñew diko téwal diko ci ko parce que lolu aussi daf koy gëna encourager gën ko motiver mu am na solo mais tey le xoolee xale yi nii ñuy bëree mu nekk soo xam sport national donte nit africain bi la def am. bon yëg-yëg bi ci am mooy euh, biñ ci am ñun ñëpp rek mooy li wax sànq rek courage la góorgóorlu parce que nit aussi ci sport compétition yu je pense que chaque fois di nga am djem euh, outa sa bopp profil bo xamné euh da ngay ambition lay doon quoi ci nit ki parce que am ambition ku ne rek yow déjà ya ngi xalat euh genn sori quoi donc euh, gën genn gën am taxaway dal en tout cas loolu dal je pense que ne bu nekké ci ñom aussi té ñu même bu ci nekkul ñu def ko ci ñom je pense que loolu dina am ben avantage bo xamné da ko jox xalé yi ne leen permettre aussi yenn taxawaalu yeeg yeneen yoy lepp dafa mën a denc ñom aussi voilà clarinet Yoruba. Dans le rendez-vous septembre, comme vous l'avez dit, le 3 septembre, Inch'Allah, jërëjëf. Digir maa ngi lay ziar. Waaw doon la ziar. Tey ñu ñëwoon fii Somone nga organiser fi woon benn tournoi nit collectif mu nekk loo xam ne nii lu jafeñ na pour nga comprendre ko nekk loo xam ne nii par point la te si biir point yi à tout moment mën ngaa dem ba benn point sax mën na laa xañ mu nekk lutte boo xam ne daal bu compliqué la tey jii initiative bi fu mu jugee ak lu waral daaf samon bi ak lu waral lit olympique bi boo ñu ko mënoon a expliquer ak création beeg initiative bi fan la jugge lan nga waaw ginnaaw bi ma nuyo aduna yëpp nuyu la laale yoon di wax ne si li nga wax non la demee parce que euh, initiative bi mu ngi jóge si club olympique africa bu somon centre la Amna lepp lepp mu ngi fi Amna football amna béré amna daw Amna lepp athlète yëpp dal amna fi léegi bi mu demee nag dox ba ñu toll ci am côté lit bi ñu sollicité woon ñu pour ñu defal booy ay formation ñu jëloon ñu yóbbu woon ñu Gàmbi defal ñu formation lutte olympique pour nga xam te ni dinañ mën a former yeneen xale yi nga xamante nii ñoo nekk fi affaire bi moom c'est ouvert Petite Côte bi yëpp ñoom ñu ngi ci biir mais dañ ko tàmbalee nii parce que fi mu toll nii ñu ngi doon def qualification nii normalement bu ñu suñu deuxième sortie dinañ defaat beneen championnat fii mais deuxième troisième sortie bi Côte d'Ivoire nañu bëgg a demaat léegi si kii bi maanaam li ci nekk dafa bëri parce que yaa expliqué xaw na am différence tuuti ak bëre mais am na lu loo xamante ni bëre mën na si jariñu parce que bari na ay qualité yoo xamante ni vraiment amal na importance mbër mais li ci nekk mooy olympique xam nga c'est c'est mondial loolu mooy mooy solo bi quoi vraiment olympique bi euh, man bi ma si duggee yàggul parce que maa ngi ci def presque un an mais bi ma si duggee jëlee naa si expérience bu bëri boo xamante ni sama rakk yi nga xamante ni ñoo nekk fii somoon di bëre sax dama leen siy jàppale parce que loolu mooy avantage bi quoi tey lutte bi mu am nga mooy combat waaw lutte bi moom xam nga côté côté côté daan bi maanaam dafa am différence ah béré béré simple bi am fii parce que lutte bi euh, quatorze points moom mooy jeexal combat bi trois minutes ngay béré parce que boo daanoo digg ginnaaw doo bi quatre points la boo kii bi euh, bu de dëppoo deux points là boo laalee tere bi un point la léegi si point yooyu noonu nag mën nañ la jox ay point yoo xamante ni yow sax doo ko gis parce que arbitre bi mooy signalé waa table ji rek ñu bind parce que moo waral bandero yi nga xamante ni moom nañ takk yii mooy mooy mooy parce que olympique boo koy arbitré ñaari bandero yi rouge rek ak bleu moo am bleu mooy gauche rouge mooy droite nii ngay joxe point yi bu daanoo gi ginnaaw da ngay def nii mooy quatre points bu fekkee doo la daanoo nga def nii mooy deux points léegi bu rouge amee quatre da ngay def nii rek ki si table bi dina bind léegi si point yi matin te temps bi jeexul après combat bi day jeex mais man nga daan sa adversaire mën nga ko daan am treize mu manqué la benn point mu am quatorze mu jekkal la yenu la la si suuf combat bi day jeex yow mi amul woon benn point boo ko yëkkatee dóor ko yow yaay gañe en même temps su fekkee ne da nga ko daaneel mu dëpp fekkee yow amoo woon benn point moom am na treize moom boo ko fa bloqué ba moom mënatu la tourner day am temps buñ la may tuuti ba ba mu leer nañu kii mënatu la tourner bu boobaa moom day perte treize points yi mu amoon yëpp kële jël final bi loolu mooy euh, kii yi daal. Mhm. mais ku leen di jàppale si lii nga xam ne nii moom lay def. waa lii Olympique Africa ñoom ñoo ñoom ñooy ñooy ñooy ñoo ñu ñoo ñu coiffé ñoom ñooy subventionné. équipe yi suñuy génnee dem Gambie football bi buy génnee ñoom ñoo leen di coiffé bon ñoo leen di res lépp ñoo leen di res seen transport aller retour boo demee tamit hôtel nañ lay dalal compétition yi yëpp ñoom ñoo koy financé ñun daal dañuy ñëw rek participer après mooy loolu. demoon nga Gambie mais euh, dañuy waajal pour dem Côte d'Ivoire. Gambie bi ñu fa demee euh, xale yi ma yóbbu woon benn xale donc moom moo ci indiwul médaille amoon nañ fa. ragal na amoon nañ fa neuf médailles waaw. kon daal ko commencé léegi yàggoo si waaye yaa ngi ciy def performance ak xale yi. waaw ñu ngi ciy def performance am na yeneen xale yoo ne si département de Mbour bi école bi ndax mën nañoo département de Mbour bi yëpp parce que affaire yi moom centre la ku ñëw da ngay bindu déposé parce que tamit aussi ñu ngi rayante sax def le maximum jeux olympiques yi deux mille vingt six ñu fexe ba am ay athlètes yoo xam ni dañ ciy participer. te yoy yëpp qualification mo la ko may parce que somon centre olympique africain la wa ok ok makar Bakar macha ak rendez-vous ba mercredi yaa waa. nga baro nga baro. iri ñu fii. Eh. Duri ñu dóor yu metti ah. waaw <laughs> mercredi moom match bi la somon ñu ñëw nu dóor ñu dóor yu metti eh. voilà attaque

centre olympe africa sumon dafa bokk ci centre yo xam euh, li ñuy wax noa association des comités national olympique de l'afrique de l'ouest ñom ñoko yor bon si afrique nak tasna ba mu ngi si quarante centre 40 centre yo xam ci un peu si afrique lañ nek donc dañuy liggéey am suñu programme spécifique yo xam ñun dañ koy dourulé waaw solo ñu fekk ngeen di def tournoi trois bi su ma juumee diire na cinq jours booy xool. ngeen def trois catégories catégorie trente cinq quarante ak cinquante. tegal xale yi ay médaille ak ay ceeb ak diwlin yooyu te tey bëgg nañoo xam ba xam ni école bi pour Sokone kese wala département bi ñëpp mën na cee gis seen boo ak en plus tournoi yi ngeen di def nii pour lan moo tax ngeen koy def da ngeen di tàggataale booy yi di leen moo tax ngeen koy def wala lan. en fait euh, fédération euh, lutte olympique euh, dañu am financement boo xam ne dañ koy jagleel euh, centre yi ñuy wax centre olympique africa pour ñu mën a liggéey si si seen euh, préparation pour les JO de la jeunesse donc ñun ñu siy liggéey ñu amoon formation boo xam ne def nañ ko man je pense que yor na def naa deux diplômes yoo xam ne benn bi maa ngi ko defee Mali benn bi Côte d'Ivoire mhm. donc euh, biñ mujjee def ñu ngi ko defee euh, Gambie donc euh, dañ ko def ba pare defaale benn tournoi ñu yóbbu woon lu mat juróomi jigéen ak juróomi góor ñu demoon compétir foofu donc compétition yi nag buñ koy def fii la ñuy jëkkee balaa ñuy génnee au niveau international donc dañuy sélectionner xale yi fii ñoom ñëpp nag dañuy xool seen âge xool seen âge yi jël seen pois waaw catégorie bu nekk dina am âge am poids léegi bu ñu saytoo ba pare dañuy tas nag bu ñuy def làmb ji dinañ ko yéene fu ne pour képp koo xam ne bëgg ngay ñëw bokk nga ñëw bokk donc euh, amuñu ne somon rek la ñuy yem am na ñoo xam ne dañuy jóge ba yeen géeraw sax amoon na ñu fi doon jóge di ñëw fii pour pour pour pour bëre ak caafara donc kon dañ ubbi lii bi pour pour a bokk euh, lu ñuy def nag mooy dañ am sélection sélection boo xam ne de 14 euh, jëm ans mooy de quatorze ans la ñuy commencé la ñuy dañ expert Vincent Aka Vincent Aka euh, expert en domaine de lutte donc euh, nee na ma mas nay entraîner euh, waaye Fass te nekk parcelle damay fàttali nu mu tudd Papa Sow mas ma koy entraîner nee na euh, mas Papa Sow nee tamit yàgg na di bëreex Balla Diouf Balla Diouf c'est c'est champion de lutte waaw donc nee na fin de carrière am la ko mas daan mais saa bu bëreex Balla Diouf Balla Diouf da ko da ko doon daan donc Balla Diouf moomu tamit sénégalais yi waroon nañ koy indi au niveau du Sénégal mu meuna a initier les gens sur la lutte olympique c'est très important fi amna ci si xam-xam parce que xalé yi ñom fi mu ne nii ñun ci au niveau du centre xalé yi ñu ngi commencer miin lan moy lutte olympique Abdou Faye dalay dalay wan point yi affaire yoy mom lutteur la won champion la won mais biñ demee Gambie dañ ko formé mu am diplôme donc mom mën lay encadrer ay xalé donc li ci war yépp mën na koy xam donc ñun ñuy def moy tasse buñ ñëwee xale yi buñ leen entraîné nañ leen wan nan la ñuy bëree affaire bi nañ normal normal waruñu koy bëree si suuf si tapis lañ ko war a bëree. <laughs> non dama la koy wax rek si normal normal si tapis lañ ko war a ñu bon peut être suñ suñu tapis yi daa daa am retard pour ñëw donc le comité national olympique bindoon na Olympe Africa pour ñoom buñ ñu mënee indi suñu tapis yi ñu indil ñu ko bu boobaa si lay gën a amee ampleur ba donc man tooguma di xaar nag ñu ne comité olympique indi na tapi yeex ya, yooyu wala olympe africa donc dama def ben arène mhm. espèce arène ma tudde ko ben pa mhm. bu ñuy wax falang dañ ko dakalante falang mhm. mais ibrahima dieng la tudd mom mom mom lañ tudde fi parce que mom grand champion la won champion bo xamne euh bima ko waxe dama ko bett wax kan dama la tudde fi arène bi Mune ma mom euh, champion international bu lutte olympique mës nay ñëw seet mu doon luma bett nak man nama ko jafoon ne si ci lutte li rek la doon def lutte simple mu ne ma mas ji nay ñew set si ko am nañ ay programme nak du ben programme rek programme yu bari la ñu ngi ci lutte bi ñu ngi si basket A 3 ñu ngi si ben programme bu ñuy wax OS e pour jangal xalé yi donc fi nak ñu fi ñu fi def liggey liggey bi metti na torop mais ñu ngi koy ñu ngi koy séex ñu ko wara a kep ku fi nek nak tamit da nga am ay njàng moo xam ne da nga ko jàng pour mën a yor ay xale mhm. xam nga tàggat xale neexu mhm. donc am nañ jàngat moo xam ne jàng nga ko mhm. pour mën a mën a tàggat lii donc li ma la bëgg a wax daal mooy lutte bi mu ngi avancé te chaque année ñun dinañ dinañ dinañ ko dinañ ko def pour dimbali xale yi am nañ tamit xale buñ si xaw a yaakaar muy Nabil Nabil Moustapha Diop moom atam dafa to tombeex liñ soxla pour bu ëllëgee buñ gisee ñeneen tamit ñoo xam au fur et à mesure dinaa waxtaan ak sama staff bi ñu yoroon affaire bi ñu xool xale yi lii bi su ko defee euh, la fédération sénégalaise de lutte euh, ma nekk lii CNG de lutte mën naa fédération buñ soxlee buñ ñu waxee ñun mën nañ leen envoyé xale yi xam nañ éléments yi ñuy lii waaw ñuy waajal JO deux mille vingt six. waaw ndax boo gisee loolo waraloon si biir drapeau chef de ñu indi si ay xale. catégorie comme nii trente cinq quarante. cinquante ñuy compétir. mu ngoog ñu leen di jàngal li nga xam waaw waaw tey jii xale boobu di Naby Moustapha Diop tey jii moo jëlaat seen tournoi bi. Mm-hmm. te euh, euh, seen yaakaar da ngeen di ànd ak moom mais tey bu ñu leen woowee comme compétition am ngeen équipe boo xam ne nii boo xam ne à chaque fois. mu ngi taxaw thème boo xam bu ngeen bu ngeen woowee rek am ngeen équipe boo xam moom ngeen yóbbu. Euh, en fait ñu euh, ñu ñu ngi si préparation yi nag. Mm-hmm. xam nga bon souvent euh, boo demee si si si si si par exemple club yi. Mm-hmm. ñoom dañuy am non maanaam club boo demee si fédération yi wala ligue yeex yooyu ñoom si suuf am nañ ay ay club ñun nag amuñu club centre lañ. Mm-hmm. centre bu ci comité national olympique au Sénégal donc nous li ñuy liggéey ñun fii lañ koy donc ñoom bu ëllëgee ñu soxlee nous ñooy ñëw wala ñoom ñu ne dañ am luñ soxla fii ñu boole leen ak xale boobu ñoom ñu dem yóbbu ko ñu lii fii dañ fi pratiquer discipline yu bari ah am na basket am football am na euh, nu judo am na karaté boo toogee bis kanam di am na loolu yëpp ñu ko fi ñu ngi discipline bu ñuy wax baseball five baseball five xeetu baseball la mais xale yi ñoo mais si bal benn bal bu ñuy dóor ñoom ñuy tourné si ay base si base la def ñoom tournoi bi président fédération la Moustapha Kabiru nous na fi fan yi pour xool nan lañ initier aussi euh, les entraîneurs sénégalais pour pour pour JO yi tamit donc ñun daal ñu ngi accueillir ñëpp képp koo xam ne bëgg na fi ñëw pour def benn activité ñu ngi si que A3 tamit day am au niveau des des JO boo leen xoolee euh, JO yi France yi am na basket à trois donc ñun dañuy pratiquer basket A3 mais si bas âge pour xale yi tamit bu fekkee ne am na ñoo xam ne ñoom soxla nañ leen tamit ñu ñu jox leen ko.

fii am beneen xar kanam donc essayé nañ ah essayé nañ fii ñëw pour dawal fii canoë et kayak xam nga ñun am nañ dex gu gu xaw a yaatu mais yàlla def def def expert bi ñëw fi ñaari yoon expert français bi bu mu fi jëkkee ñëw ñu ànd dem dex la léegi bi mu xoolee bon c'était marée basse donc ndox mi yéegul woon bon mu toog ba période boo xam ne marée bi day yéeg tamit mu ñëwaat fi pour xool dex gi mais bi ma xoolee dex gi dafa fekk dex gi amul ndox moo xam ne mën nañ fi dawale canoë kayak donc si lañ choisir dem Saly donc ñu koy defee si géeju Saly gi foofu lañ koy lañ lañ koy dawale donc ñu gaay nag ñu ngi si Union européenne mu ngi si pour pour pour gasaat dex gi mais damay xalaat mu xaw a retard ba ñoom soit comme choisir nañ siti donc te xam naa ne hôtel yaa ngi fi te fii jigéen na fii mën nay doon terrain d'entraînement mm-hmm. si lépp muy basket muy football ak ah, yëpp mën nañ ko ci def donc may lancer appel tamit euh, au président mm-hmm. du comité national olympique ñu jëm ñuy gën a gestu mm-hmm. pour euh, rénovation bi fii ñu def ko su ko defee mën nañuy accueillir euh, ñenn ñoo xam ne dañu fiy entraîner. dëgg am na merci beaucoup kontaan kontaan. kontaan si yow kontaan si yow si li nga fi ñëw mm-hmm. gis nga gis nga activité yi nu muy demee xale yi ni ñu bëggee affaire yi ni ñu fiy ñëwee mm-hmm. ku fi ñëw di nga fi jële kontaan mm-hmm. waaw. ñu moom lépp lu jëm ci wàllu làmb ñu ngi ci biir. da pour ñun tamit ñuy gis xale yi nii tey jii le courage la xam nga tey jii nga ni xale bi bis bi nga xam ne mu ngi bëree jël benn euh, bidon diwlin fekke woon naa ko. wala tey jël na benn saaku jooy sama kanam la woon nga mën see am benn histoire boo xam ne nii loo xam ne daal histoire da bind daal comme hmm. exemple ni ma la ko mën a nekk loo xam ne lu rafet la euh, euh, bi ñu nekk tamit booy xool Petite Côte damay wax à wala nga jéem dara si wàllu sport hmm. ak sport bu munti doon ku si jéem dara ku nekk di si réussir hmm. ndax loolu yàlla moo leen ko mooñaal ñu nangu ko ak ñu bañ ko Ousmane Dieng Jordan da koy wax grand champion ñu ngi lay jaajëfal bu merci beaucoup Merci beaucoup. Okay.